asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyuwaat leen ziar leen bu baax ñi ànd ñun ci télévision bi di Thiès TV ginnaaw bi ñu jullee ba yeggal ci ziaraat yi nga xam ni télévision bii di Thiès TV tàmm na ko suñu écran di ko ubbee fii dañuy faral di wax naan Serigne Babacar Sy moo naan góor du jàpp bay waaye góor du fecc kóllëre yàlla dogal na at bi nga xam ni ci lañ njëkk a ubbi Thiès TV mu tombeek ñuy waajal weeru koor bi mu tollee ci bis bi nga xam ni moom mooy tombeek bisu julli keroog biñ jógee ci imam ba yeggal fii la ñu ñëw ci sëriñ ñang di boroom xam-xam bu sell dégg ko suñu micro mu waxtaan ak ñun ay yamul tamit ci waxtaan bi ñaanal télé bi te boobaak léegi jàpp naa ne juróom-ñaari at yi mat na saak at mu koy ànd ak ñun kon télévision bi ñuy wax rek te boobu mu ngi yemoon ci benn gox kon bu ñu demee ba Thiès TV daj département bi yëpp ñëpp di ko seetaan kon dañuy ñëwaat ziar ko muy borom xam-xam bu sell borom xam boo xam ni yàlla dogal na nag ñu naw ko ci ñaar muy benn bi mooy nitu daara la jëlee ko ci ay waajuram di borom xam-xam ndax imam Ahmed Niang mii doon jiite moom mii moo nekk kilifaam nekk xalifaam waaye ginnaaw loolu tamit ñu gisaat ci moom beneen cër muy wàllu xam-xam mi nga xam ne yàlla may ne ko wuute na ak ñu ci bari ñi nga xam ne yàlla may na leen ko ndax amaana Oustaz Moussa xam na ni ñu ci ëpp yàlla may leen wàllu xam-xam am na nuñ cay doxale waaye bokkul ak moom ni mu cay doxale moom da cay jaamu yàlla da cay dimbali jaamu yàlla te yàlla tax waaye di leen jox ay ñaan di leen ko baaxee ci rajo bi Oustaz Moussa la ñuy bàyyi rek mu ubbil ko bu ko defee rek ñu joxaat ko mu yëkkati message bi muy jox askan bi ginnaaw at wu ne ñu ànd ceeg moom di ñaan suñu borom yàlla nañ toog ba naan ko ànd nañ ko fanweeri at ci bàkk nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam Euh, sëñ Mouhamed Sylla ni nga ko waxee rek euh, ci sëñ bi nga xamante moom nañ feggoon di sëñ Mamadou Niang te yàlla wax ñu si alquran aw fu bil ahdi inna l ahda kaana kon kóllëre goo nga xamante ni la mar la yàlla dañoo sant ngir ñu sàmm ko kóllëre goog duñ deñ di ko sàmm ba keroog ñuy wujj suñu borom te it na ko waxee yàlla dogal na ba ñuy tàmmali ba léegi da di suñu limaay da di koo xamante ni heure bu ñu jugee ci jumaa ja ci moom na ñu njëkki ñëw ziar ko waaye tamit mu jox ñu bind boo xamante ni yóbbal lay doon ba déwénati jaare ko si mbindu maam Cheikh Tidiane si al maktum ak mag ñi nga xam ñoo fi nekk loolu nag duñ dañ di ko bàyyi ndax njariñ la boo xamante ñu ngi siy yeg suñu bopp jullit ñi ñu ngi siy yëg seen bopp waaye Cees ak lu ko wër ñëpp ñu ngi siy yëg seen bopp moo tax tey ñu ñëwaat eh, papa waaye dellu ziyaaraat waaye ndokkelante waat yoo xam bi nga ndokkelante waat ak jullit yi baalante waat ak ñoom ak ak ñi ngay jëflanteel ñëpp ndax ni ko Pape waxee liggéey bi fa tabaarakalla sell na ba yëg nañ ni sell na ndax xobu garab bu nekk bu ko jëlee mën na la wax turu yàlla ba nga xam moom la jàpp ndax loolu jagleem la bu ko suñu borom may kenn ku ne ak jagleem bari na ñoo xam ne ñu ngi liggéey waaye amaan na loolu mën ñu waaye loolu jagleema fatabarakallah lele man tase nin mun man sëñ man la boy wër ku wër ku wër li day bo ekkee sëriñ ngoy bo ba nga feranko lay ndax loolu cërëma cërëma fatabarakallah tabarakallah kon nag eh, mu ngi non ñu ñaanal ko suñu borom allahumma ba yalla nako yalla nangu papa dal ñëwoon nañ ziar ndokkeel waye di sakwat bind bo xamanteni ni dinañ ko jël muy suñu yobul ba déwén nak jàmm ñang alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu bokk yi di yëpp di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu imam di imam Ahmed Niang di ñaan borom bi xëcc fanam téeméeri ak ñaar fukk ci mu ànd ak wér ak tal ndax ñoom dañu am solo lol ci diine yi ay tanef lañu tanef yi nak amna waye amna na yu ci rax ndax ñepp ci legi wa anta fa tabarakallahu limam Ahmad al maktum dan wax yalla yalla yok ko leer borom jang ena na ak borom xam-xam bokul ena borom jang day bari coow lool ca du xam fu muy teg tànkam ay boroom xam-xam moo xam fu muy teg tànkam kon foto tabarakallah bu ñu amee ku mel ni suñu sëriñ di imam Ahmed Niang loolu la yàlla dogal toppul sax ci man. ande damay fal di xam ne bu dul woon maam Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum doy na ma sëriñ loolu la yàlla dogal parce que àdduna boo ci bëggee noppalu nit ki nangul ko la mu doon parce que xam nga lu ñu tardeel ñett yi njëgteef ak yëgteef ak waxtef waaw waxtef moy kaddu bu xasse genn bal la borom momatu ko moto bal nga wax ra étudier ko parce que bu xasse dem dem na njëgteef nak njëg la koy jënde ci du jeex ba barki dem rek ben way nga mo wo Dakar fi moy liggéeyee fi moy liggéeyee dañuy xey xey rek yak xel directeur ba Euh, ben jigen ñëw remplacer ko ñu toogloo ko ci bureau ba lamu yoron yep ñu nangu ko nee bu ñewé day fekk ndaw ci laal ay safara ak ciuray koku moy njëkteef dem ci ben sëy ko dama bëgg nga defal ma fas go xamni dal daal diw mi mu nekk ci place bi balaa bu ñu jël ko fa ma jël place am sëñ bi ne may wéxal nangam mu wéxal ko nga def la ngay def lool moy njëkteef ñeek la koy dënjee na mo tardel ñepp yek teef def ko yek ci xolam ci dula ko yene xol état sam rafet bi xol auto mu rafet bi xol xaram tawabir bi du ko wuti ni yow kat motax famu fa taxaw du fa jóge mok du tané kenn du raw kenn du dem fenn lolou moo ñu mais bu fekk ne ko gis yalla jox ko tranga nga ñaanal ko tranga yalla yok ko ah ko am état bu rafet nga dal di romb ko ga gën ko ah, yalla ko yalla barkel yalla na gudd fal yalla na ñig foo fekk lu lënd nga lënd fexe ba lijjanti ko ba mu leer kon réew mi jag mais loolu mu ngi tardel benn bi gis mooy yàlla bu yàq sunu borom bu yàq bu def ci mbool bu màggat ci bool bu bees lay def gis nga bu ñëwee ba ci bu tilim bi da koy jël ñu ñu borom bi waaw ndab yi nga yàq mu bees ci bii nga jël ko lu ko waral muy dafa tilim ñu waaw ni ñuy def ba am couleur bu ñu ko mën a peintre ba mu jël couleur morom yi ba ñu yàq ci maintenant dama leen tegtal Ndakaaru am na fa juróomi gox yoo xam ne su ngeen ko jëndee mélange ko peintre koog bool bu màggat bi mu jël couleur bi ma door a yàq ñu ko yan gox ci Ndakaaru mu ni Ngor am Ngor ba sëkk ñu ne ko ak ban mu ni Gorée ñu ne ko ak ban mu ni xaar yàlla muñ ñu ne ak ban mu ne jàmm ma mm-hmm. bu jàmm amee lépp yow mm-hmm. ñu ne ak ban mu ni mer muus soo meree nga muus yooyu ku mu nekk ci yow rek ñu mën laa tappal qualité boo xam ni aw nga ci yoonu code de la route et di nasratul mustaqim su ko defee mag ñi ñoo ko fi defoon góor gi Ndari Wade ak sama jur benn la woon seen papp nekkoon kàng fóore boo xam ni alxuraan ni mu ci meloon kenn mësu koo gis fa tabarakallahu euh, comme tey ci ñun booba ñi nga nekk foofu ci Dakar gi di jàng alquran loola nag mag ñi lañ liggéeyoon puso bi réerul ah gi dari wadd góor gi mbay njaay ah fa tabarakallahu mag ñu baax ñi fi nekkoon ñëpp Baye Assane Niang Baye Ablaye Sène mag ñu baax ñi fi nekkoon ñëpp la fi sampoon yàlla dogal na puso ba réerul ñi ñaan yàlla rek la fa ñu ci tat ci barke yonent bi ah yéen nag fa tabarakallahu eh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax taxawaay bi ngeen taxawaay am na solo lool parce que mission la yal na yàlla mottali ci barke yonent bi ak barke mag ñi kontaan nañ ci yéen bëgg nañ ci yéen yal na yàlla mottali tey nag damay joxe benn secret ci naafila waaw secret naafila bi ci sootul ixlaas lañ ko tëggee ñaar rakkaa ngay julli rakka bu nga def xul wala ahat fukki yoon ak benn di huwa nga sël ma defal yeneen ñaar rakka rakka bu ne nga def 66 lexlaas di allahu nga sëlmal defal yeneen ñaar ràkka rakka bu ne tërës xulwa di ahadun nga sëlmal defal yeneen ñaar rakka rakka bu ne 66 xulwa di allahu nga selmal defat yenen ñaar rakka rakka bu ne 135 xulwa di samadu bo selmalé bo calculer rakki dafa la jox 582 tolok alhamdullilah rabbil alamin boko ko 582 la moy motor bi waye bala nga def alhamdullilah rabbil alamin 582 yi nga am dang ko multiplier par 7 mu jox la 4074 astaghfirullah nga liggéey ko so paré nga def alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin 582 parce que moy adat bi nga taf sa tembar juróom-ñaari pérosal fatiha su ko defee loolu nag naafil la waaye nag am na ci boo xam ni moom mën nga ko jël duko sikar ken duko sikar ko sikkar fa tabarakallaahu dana far sa dana lu ubi dana jox ya nga huwa allahu ahadun allahu samadu nga jël tablo, huwa min indallaahi huwa min indallaahi nga jël al alkuber gi xam nga cinq la nga def huwa allahu ahadun allahu samad huwa allahu ahadun allahu cinq fois mhm. waaye boo def da nga def lu tolloon ci allahumma salli ala sayyidina muhammadin rafiu darajati wadudu cinq fois nga jël waaw nga six mhm. aca six fois mhm. huwa allahu ahadun six fois allahumma salli ala sayyidina muhammadin rafiu darajati wadudu fois nga quarante huwa allahu ahadun quarante at allahumma salli ala sayyidina ñuy dégg daañu ko mën a arrêté euh, lim boobu cinquante noonu nga huwa allahu ahadun allahu samadu aca cinquante allahumma salli ayun mhm. gi soixante dix aca allahuma sali nun cinquante mhm. aca allahuma sali quatre gi deel gi quatre mhm. aca allahuma liif gi benn yoon aca allahuma laam gi trente aca allahuma benn laam gi trente aca allahuma alsaqir gi cinq aca allahuma ñoo ni ñi dégg ñoo ko mën a tënkaat ku ko soxla boo ñëwee si noonu daal na ko leeral mu nekk la boo xam ne boo naafila du liggéey loolat fa tabaarakallah am na ñu koy liggéey tamit nafaqatu yawmin dépasse tey 291 fois multiplié par 2 égale 582 mais donc nga koy def rek foo nga def nafakhatu yow huwa ala adun manam 291 ken du ko liggéey fa tabarakallah te farul sa bakar ub sa waar buntu la ubbi la buntu xéewal yëpp di ñëpp di ziar ñëpp yalla yalla yàlla ci barke Seydina Mohamed yalla la fa leen cat seen musicien fa ngeen bëgg mu dem fa yalla nako ag àgg télé bi yaatoo yaatu ba aduna bepp di ko déglu ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam ñi ngi nuyu di ziar wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa وستر القبيحة ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يأتك ستر ويا عصيم العفو ويا عصم تجاوسي ويا واشي المغفرة ويا باش تليدني برحمتي ويا شميع كل النجوع ويا منتهى كل سقوى ويا كريم الصفح ويا عصيم المن ويا مقل الحسرات ويا مبتدئا بنعم قبل تقاقها يا ربي يا ربي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خاية رغبتي أسألك أن لا تساوي خلقتي ببلاء الدنيا ولا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى سيادتك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة ما يشفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bëggati nañu. ñu nuyuwaat leen rek ziar leen bu baax ñuy bàyyi xel télé bii di Thiès TV yàlla dogal na nag ñu miin suñuy image rawatina ci bis yi nga xam ni mooy bisu julli xam na ni télévision bii di Thiès TV miin na bërëb bi ni ñu ko waxee rek ko kóllëre du soppeeku yàlla dogal na. mën naa ne oustaz Moussa ci li ma jàpp ci ren mooy bii mooy juróom-ñaari at seen télévision bii di Thiès TV heure bu ñu jógee ci jumaa ja dinañ ñëw ziyaarante ak suñu waajur nuyu ko waaye jox ko suñu micro ndax doon na jëmm joo xam ni yàlla dogal na ci wàllu diine pas-pasam ak ndimbali nit ñi te yàlla tax jëf te yàlla tax ñu min ko ci moom waaye oustaz Moussa bu ñu fàttalikoo bi ñuy doog a tàmbali di ubbi télévision bii di Thiès TV bi ñu initié émission bi ñu naan li ci askan wi te boobu suñu bërëb ba tuuti moom mooñu joxoon këram ci kaw ñoom mama buur géwal di fa enregistré seen émission thématique boobu ba ni yàlla dogalee studio ba am waaye ca màggal ga ci TV njëkk a dem ku ne xam na ni télévision buy door day métti moom la yàlla dogal mu yëkkati ci ñàkkam ci wërsëgam def ko ci enveloppe teg ko ci loxo Oustaz Dieng Sy ne lii kat mooy sama barkeelu pour contribuer télévision bi te ba ñuy ànd ak moom boobu télévision bi ngi nekk ci loo xam ne ci commune ouest bi la yam kon tey bu ñu demee ba département bi yëpp télévision ci TV ba ci monde entier ñëpp di ko seetaan yàlla dogal na kon nag suñu kóllëre ak moom day woy di ñëw di ziar ak moom waaye sant bu baax suñu waajur suñu maman Rabi wax dëgg yàlla ñun dañ ko fonk dañ ko téye ci taxawaayam mbiir ak biti liñ naan kër bu bunt kër ga leere lépp leer ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na doomam bu góor di njoogu nga xam ni ñoo bokkoon sëy yi di jàngandoo nekk ay xarit muy sama xaritu benn bakkan nga xam ni moom rek mooy tax ma jaar fii taxaw wax ak moom lu mat waxtu bu retard la may def kon papa ginnaaw ñu lu ziar la di la joxaat suñu mikro nga baalante ak ak askan bi nga xam ni ñëpp ñooy seetaan ndax ku ne xam na ni jamono jii ñu toll ci bis yu mel nii wax dëgg yàlla la nekkoon sa yéene ni ko Oustaz Moussa Wade di waxee mooy kër gu ne nga yegg fa joxante ñoom loxo waaye tey sa cër ak sa daraja ji la yàlla may yàlla yokk yamatul fii nga xam ni mooy ci Cité Senghor da nga ko jëflanteel ak ci Sénégal gi yëpp ca wàllu liggéey ci wàllu entreprise entrepreneuriat ak emploi des jeunes li nga ci liggéey ci réew mi ñëpp mën ko seede ndax ndaw yi bari tey bu ñu amee kër ba mën fa dëkk ba mën a investir yor seen njaboot bu mën a tuxu yàlla mi ngi koy jaare sa entreprise ba loolu lépp am waaye ginnaaw nuyoo tamit message bi day nekkaat rek jamono ji jaxasoo na waaye xutba ren bi muy lu am solo ndaw yi nga xam ne léegi kenn amatul jom suñu ziyaaraat yi dañ ci bëgg kilifa yi ñaax ndaw yi nga xam ne kenn amatul jom léegi li ñu gën a visé jàpp nañ ni carte xaalis mooy tax ndaw tekki ban message message dañ koy joxe incha allah. Ah, di dolli di leen encore at bu nekk yéen at bu nekk at bu nekk yéen a ngi wër ci kër yi di soññ ni ñi ku nekk joxe ni nga xam ne mën na doon contribution ci euh, média bi sant yàlla sant bu baax a baax ah xam naa ni waxtaan bi waxtaan naa rek ngërëm la sant leen di ñaan yàlla korité yi ñu fekke yàlla may ñu fekke yu bare bare ci jàmm ak salaam yàlla defal ñu jàmm defal ko njaboot gi e, defal ko peuple bi defal ko réew parce que ñun réew mi rek la ñu am c'est notre fierté e, ñaan yàlla yàlla yokk xéewal yi yok yalla bi nak man limay wax ci ñom moy wax deug yalla seen la di qui ñaan vie, ak jom c'est très important parce que àddina bi yakuna du Sénégal du Afrique rek bi yakuna soo xoolee causes yi nga xamee ni ñoo indi dévaluation bi ci biir àddina bi lépp lépp lépp yàq yàqu li fi sës mooy li fi mës a nekk jël sa bopp jël sa lépp delloo ko yàlla xale yi nag ni leen di ñaan mooy il faut que ni ko ni ka waykat yeeg nit ñu baax yi di wax il faut que ñu gëm seen bopp xam ni euh, lépp loo xamee ni ñu ngi koy def na doon loo xamee ni sutura lay doon pour ñoom jàmm lay doon pour seen parce que àddina dafa gudd tànk tey di nga def tey dara mais bul xalaat na nga xalaat ni say sët mën nañ ci jot te nit ki dafa war di def toujours lu baax di ko sant yàlla yéen nag waa Thiès TV wax dëgg yàlla seen wàll ci ci ci ci seen wàll ci waar bi yéen a ngi koy béy bu baax a baax yéen a ngi def ay ay émission éducative di soññ ni ñi di xalaat toujours loo xamee lu baax la ci ni ñi di assister ni ñi itam donc yal nañ yàlla defal jàmm defal ko moo leen jëlee di ziar di leen ziar di ziar Thiès habitant yëpp di ziar itam. Euh, Sénégal ak nit ñu baax ni ñëpp ñu leen di ñaan yàlla yàlla defal ñu yiw defal ñu sutura xale yi nag li ñu war a def mooy continuer comme ni ma ko waxee commencement la gëm seen bopp di liggéey liggéey rek liggéey rek mën a yóbbu Sénégal foo xamee ni situation yi difficile yi gis nga àddina bi nu mu perte bi yàqu na yàqu ba xam ne nit ñi sax ñu ngi xalaataat guerre mondiale te guerre mondiale soo amee àdduna tukki yàlla nañ ci yàlla musal donc man message boobu laay wax ne xale yi nañu góorgóorlu nañu gëm seen bopp nañu jaamu yàlla surtout parce que loolu rek ni ci mën génn nag jaamu yàlla rek di def lu baax di wax lu baax di xalaat lu baax itam ku nekk foo toll fu sa morom nekk xalaatal ko lu baax yéene ko lu baax jëf ko jëfal lu baax ci moom ñu génn ci incha allah ci barakatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam jërëjëf ak gën a kontaan Oustaz Moussa maa lay bàyyi nga daal di tëj jërëjëf euh, Serigne Pape fa amma bi ni'mati rabbika fa xadis lamar la yàlla nee na euh, fa amma bi ni'mati rabbika waaye rikk waaye dee leen ko waxtaane mooy teraanga yi la yàlla defal fa tabaarakalla yàlla neen rafet na na nga koy waxtaanee. Mm-hmm. waaw am keneen ku mel ni yow moom it mën a delloowaat njukkal. Mm-hmm. te it fa tabaarakalla cant gi du alhamdulilah rek du ak sukk mooy teraanga yi la yàlla def nga delloowaat ko jaamam yi. Mm-hmm. ndax fa maama eh, fa maama naas fa yam kusu fil ard. yàlla neen ku ma lu dul sama jaam yi ku leen taxaw nag ma taxaw la da nga yàgg loolu nag fa lay sant bu baax waaw li nga taxaw si jàmm yàlla ba kenn ku ne mën a sutura sa bopp waaye sutura sa njaboot sutura sa famille fa taw loolu yàlla du ko seetaan yàlla neen loolu ku ko def nag dinaa la fi yàggal loolu nag waaw te loolu lañu yàlla doolu guddal fan yi waaye noonu nañ koy ñaanalee tam sa buntu yi nga xamante ni tey jii yàquñu dara yaatal nañ lépp eh, yaay raab yi ngi ni jaañ yaay xadi faal yaatal gi kër kër gi daa kër këru daaral du kër goo xam boo dikkee dañuy tëj buntu déedéet bu doon loolu ñun bu ñu dikkee benn yoon duñ ñëwaat mm-hmm. duñ ñëwaat waaye yàlla dogal na fa la eh, kër gi noonu la ko yàlla de muy këru daara nga ñëw fekk gabar ñëw fekk sëñ Cheikh na ñëw toog bisimilah sëñ toog na ñëw toog nga sëñ Cheikh waaw moom it fa tabaarakalla mu ngi noonu nga dikk sama ñoom jigéen jigéen soxna astu ah nga fekk tamit ah <laughs> jaata ñoom ak ñeneen ñi waaw ah. gis nga eh, noonu la yàlla dogalee kër gi waaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax da leen ñaanal ñaan suñu borom yàlla na yàlla dolli sutura yi noonu nañ koy ñaanal tamit yaay Xadi Njaay waaw yàlla nañ koy ñaanal saa su nañ koy ñaanal si rajo bi ah, ko njaboot ndax tata chaque jour may def émission mu woo ma kon ñu ngi leen di ñaanal fa tabarakallah ndax émission yi may def dara du ko ci da koy topp kon fa tabarakallah kër gi yàgg na loo këru daara la ci maam la woon ndax bu ñu daan dem Tiwaawoon fii la oto bi daan taxaw bu ma dikkee mu génne laf gi génne juróom jox ma ne chéri am yooyu duñ ko fàtte ndax booy lebal lebalal xale du fàtte yooyu nag dafa nekk suñu bopp ba léegi bu mënee yónne rek xel juróom yooyu daw ci fa tabaarakalla kon yooyu ak sant la bu baax a baax a baax mm. fa la ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp ñaan suñu borom yàlla na yàlla may ñu fekk teewe ay at si bar si nam xam sala s xam naa sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane euh, bëggul image bi jël ko waaye ñu sant la bu baax gërëm la ndax gox bi la ñu dëkk ñu ngi dégg yëpp dañ naan nit ki lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci lu baax jëmee ko say waajur biir ak biti amaana suñu mag la waaye ñu ngi yëg lépp ndax ku ànd ak njóogu judduwoo suñuy at néew na waaye moom li muy def lépp ci famille bi di ko defal ay waajuram ak ci entreprise waajuram lépp ñu ngi koy yëg ndax liñ naan Cees dafa ndaw lépp lu waaye di jëf ci lu baax dana siiw bu dee safaan dana siiw ñu ñaan suñu borom yàlla sàmm la sànn gabar gabar sant ko bu baax gabar boo ko rombee da lay joxaat góor gi waaw lañ naan nit ki na nga ko yar sa jikko waaw ni waajuram mel rek la mel waajuram am nay jamono fii ndeysaan liñ naan léegi rek xale la bàyyi ñuy doxal waaye kër gi boo fi musaana dugg ba tey nii lañ naan ca kaw lañ yokk rek këru daara la fi lay ñëpp lekke fi lay ñëpp yi naan ñëpp ñekk nekk jabootam kon ñaan suñu borom yàlla sàmm ko yàlla gën ko taxawu ci barke nabil Moustapha suñu bég nañu gën nañoo bég yàlla yàlla sàmm yàlla gën a ubbi lii daal lañ jële woon fii ci suñu waajur suñu papa suñu kilifa. li ci dolli tuuti rek wax xale yi nañu jël référence mag ñi mag ñi ku leen jël référence doo jum tudd na ay tudd yu am solo léegi ñuy seen i maam ku xool ñoo ñooñu ni daan jëflanteeg nit ñi ba léegi moo fa des te loolu rek ñu yor avancement wu réew. avancement au cœur, avancement au dîner, donc j'ai l'air comme référence Ça, comme référence comme référence c'est très important et je vous avez am dara dara parce que euh, employé yi gën a yàgg ci ci ci entreprise ci la bokk des na bi mu ànd ak man xale bu tuuti la boobu amaguma entreprise te damay liggéey ah euh, sama sant mayu ma may dawal mu ñëw jàngal ma dawal jël sama nekk man donc ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax war naa am lu mu ci sonn moom itam incha allah incha allah. di leen ci bis tedd bi waaw góor gi moom sama góor la. waaw wax dëgg yàlla wax cinq bu nëgëni du ñaari fan. musta jëmale ci man. waaw ni ma wóoloo yaakaar naa ni sax wóolowu ko ay doomam. <laughs> waaw bu baax la ñu koy ñaanal koy wér. <laughs> ak gudd fan yàlla yàggal ko suñu kanam. amiin ndax ku baax la. waaw man moom. xam naa ni ay doomam sax yaakaar naa maa leen ko gën a xam waaw ndax ci tabeem ci yaatoom daf ma daan dénk te duma laaj sax li ma dénk te loo bëgg jënd ci loolu mën naa def ndax di ko ñaanal moom gudd fan moom amiin amiin amiin amiin ak wér ak njabootam yëpp xale yi tamit ñu baax lañu ñu yaatu lañu doomam yi surtout seex meeg gabarek njaateeg doomam yëpp daal dëgg yàlla cër bu mag lañ ma jox. wallaay waaw ci kër gi ak soxnaam yi. seen am ay ay seen mag muy soxna Rabeeg soxna Xarit. ñoom ñëpp di leen ñaanal rek yàlla yàggal leen suñu kanam. yokk leen wér. amiin yokk xéewal bi ci kanam. incha allah macha allah. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر خاسق إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا خسر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس التي في صدور الناس من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أتخنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة بحرمة الله وصلى على سيدنا محمد فاتي ما أولف وخاتم ما صبح والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أخر خاتم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله rabbil alamin jàmm waaw amin amin jërëjëf jërëjëf